wax na dëgg de maa ngi fi waaye sama xol yëpp nga fa mu nekk te moom mi nekk fi xolam a nga fële waaj a nekk li àdduna di nekk ci loxoom yëpp mu tam ko ak loxoom dafa wan àdduna ginnaaw waaye kële nga xam ne dara nekkul ci loxoom àdduna rek a nekk ci bëgg nekk bëgg-bëggam loolu mooy dëddu dëddu da koy am ba doyal teg ko ci suuf nag xool yàlla loolu mooy dëddu àdduna waaye ñàkkoo amoon dara taxoo da xanaa def sa sikkim bu dem rek nga daal di jàpp ni kaala gu rëy dugg ci kurus kurus gu rëy nag ci tàcc tàcc bu dégg bëccëg ñu ne kii ku dëddu àdduna la demaloo fen waaw da ngay ba am boo amee nag ñu soog di xam ne mu mel moom la Seydina Omar radiyallahu taala an waxoon moom la Seydina Omar radiyallahu taala waxoon di seedaloo benn waay waa ji benn waay tëb rek ni ko ku baax la mu ne ko ah sa waay te nga teey mu ne ko dama ni ku baax la mu ne ko waaw fu mu baax mu ne du jóg ci jàkka ji mu ne ko ah, loolu rek mu ne ko kii baax bokk ngeen alal mu ne ko déedéet bokk ngeen ànd tukki mu ne ko déedéet mu ne kon nooy seede mbaaxam bokk leen alal àndu leen tukki xanaa këpp këpp ji jàkka ji tax nga ni baax la da ngay bàyyi ba nga bokk ak moom alal ba xam ne mu mel wala nga bokk ak moom tukki ci ngay mën a waxee ku baax la insaaf bàyyam ni sëñ moo xam ne xaaj Mansour Malick ni xaaj Malick ku maandu la woon ku maandu la woon ci ni muy jëflanteeg ñëpp ku tabe la woon it waaye tujaahidu nafsa wa sheytaana mujtahidan fanqaharu walakum fi nafsi tasdiidu xaaj Malick sëriñ Mansour nee na bàyyam dafa am lu ma waxoon ak yéen sànq nit munta nettali lu nekkul ci moom nit munta nettali lu mu dundul waxoon naa leen sànq ni suuratahul xawliya sëriñ Mansour photo cop ko ni bu ko waxee woon rek mook bàyyam ñoo leen ñoo bokk fu ñu leen benn suuf bu ñu leen mooñee Malick Mansour la Mansour malik la waxam jooju mu ne Cheikh Al Hadj Malick baayam ni mu daan yare bakkan di ko def mujaahada di ko tàggat guddi ak bëccëg xam nga riyaada kenn dootu ko def léegi te ku nekk bëgg nga am dara teg ko nag ci xel tëralal ko ay yoon yoo xam ni yoon yu jàpp la te moo di njëkk nee na bi njëkk ci nit ki pour mu mën a tàgg tàggat bakkanam il faut que mu wuute ak bakkanam nee na boo wuutee sa bakkan rek jàpp nga point ba ca def mooy boo wuuteeg moom ba pare tàggat ko nag ci yoon wi moo tax ñu ne jaam bi pour mu am yoon wi koy teg ci yàlla waxuñu mu sóobu ba pour mu am yoon wi koy teg ci yàlla il faut mu gañe bakkanam ba pare te nee na sa bakkan da nga ko war a xam nee na boo jógee jëm ci yàlla sa bakkan dafay xeex ak yow pour nga bañ a àgg dafay xëccoog yow nee bu fekkee ni nag musiba ci nga jóg pour def ko nee na lu mu tuuti tuuti daf la cay poussé pour nga def ko nee na woo ñàkk bakkane la ko teg ay woo dugg bakkane la ko teg yu woo ñàkk bakkane la ko xañ ay woo dugg bakkane la ko teg waaye nee na Cheikh El Hadj Malick nag ñi mu jur rawatina moom Mansour mi tax tax ko woon ak moom guddee bëccëg ak ñi yàlla tegoon ci loxoom tàggat na seen bakkan ba ñëpp tegu nañu ci yàlla Cheikh Al Hadj Mansour radiyallahu taala anhu bi mu waxee ni ko baayam tàggate ba pare ca xale fekk boobu muy lu tuuti waaye li muy tuuti tuuti ci at at yaa tuuti de at yaa tuuti maa ngi wax lu ëpp sax at yaa tuuti lépp lu jëmoon ci wàllu kër Cheikh Al Hadj Malick wala mu jëm ci wàllu bokk gi muy li Cheikh Alxaaji Malik di joxe ci wàllu dund wala ci koddaay wala lu mu doon Cheikh Alxaaji Malik mu ngi ko tegoon ci loxol Serigne Mansour foofu nag Cheikh Alxaaji Abdul Aziz daa ko mës laaj fekk xale yi laa joxoon nafi si laa joxoon ayaa xaaliqi inni ilayka faqiru bi ko Nafi dee tari ci moom mu ne ko mu ko tari ci góor gi góor gi ni ko ku woy woy wi mu ne ko pap sëriñ ma jox mu ne woo leen ko mu ñëw ñëw tàgg taxaw ci bunt bi mu ne kooku sëriñ woy wii de Alaaji Mansuur a ko woy la ko daal wax man man mu ne ma waaw ma ko waaw mu ne ma sa baay boobu ci waxin laata muy xàmme nday jooram ak càmmooñam ku maandu la woon ku wóor la woon moo tax lépp bàyyi ma ko tegoon ci loxoom خير الناس كل ميزان بمنبع الخير يا بشرى سلاطين صبر القلب أرض سخنا يا مجيب القوم زود تجد الفلان أولى الكيب ومير الناس ميزا بمنبع الخير يا بشرى سارات دولة الجلالات والصبر القلب منتصفنا يا مجد القوم زود والبلد يا موجب القوم صوت والبياد شق الخوف كون الجلالات وصبر خلف ظلما يا موجب القوم صوت والبياد تنتبه بفلين تجرى مدينة يرى فرجة مولى منك يا موجب القوم صوت والبلد يقول قوم تون الجلالات ويصبر القلب لما انتصقنا يا موجب القوم صوت والبلد جهنم والبادي منصور منصور مالك والبادي برب جلفا من كبن مجخ والبادي منصور منصور مالك kon ñu gis ni Cheikh El Hadj Aziz nee na jamono yooyu Serigne Mansour ànd ak li muy at yi di néew yëpp yëpp baayam dafa jëloon lépp loo xam ni dafa aju ci mbiru kër gi ci njaboot gi wala bokk ci ay baay tëxam wala ci ay bàjjanam ñu bokk ak Cheikh Al Hadj Malick wala bokk doomi mbokki Cheikh Al Hadj Malick yi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk lu Cheikh Al Hadj daan teg ci sa loxo nafaqatat kaanaan aw kiswa benn muy dund wala muy koddaay lépp mu ngi ko daan teg ci loxol Serigne Mansour si radiyallahu taala anhu xaaj Abdul Aziz nag nee na li adaalatihi wa amaanatihi ndax sëriñ Mansour ku maanu la woon ku wóor la woon it lépp ci loxoom la daan jaar te it mbooleem ijaazaat yi comme ni ma leen waxe woon ni sànq moo di mufattishu ti tijaniya moo di inspecteur tariqa bi mbooleem ijaazaat yi nga xam ni génn na ci loxol Cheikh Al Hadj ci waxin ndem moo sëriñ Mansour a ko daan bind muy yu magam yi yu rakkam yi ak yi nga xam ni dafa aju ci moom te war a génn lépp sëriñ Mansour a ko daan bind mboolem ku muy def taqdim tam ci loxol xaaji Mansour la ko daan defe mboolem ku Cheikh Al Hadj a woo waxtaan ak yow pour nga tegu ci yoon it sëriñ Mansour la ko daan waxal nga dem moom ci néeg mu tëj la defar la te du wane ni moo la defar dafay bàyyee noonu nga dem sa yoon yow yaa koy waxee ji loolu am nañ ci tegtal danañ ci agsi loolu ci boppam Cheikh Hadji Mansour raxma sigari sanni sinnihi ginnaaw boobu nag la commencé di jàng laxdari yu ñu di ko jàngal laxdari yu muy jàng waaye lépp loo xam ne lii daf daan jóge ci Cheikh Al Hadji Malick muy lu ñuy joxe wala lu ñuy bind wala muy taqdim wala muy ijaaza lépp ci loxoom la jaar ni mu ñi tawjihit ñëw Serigne Mansour ñëw ci Cheikh Al Hadj mu boole la ak Serigne Mansour am nañ ci benn wala ay tegtal yu bari Al Mbay dëggal ci la bokk Ibra Lo xam naa ne ñu bari ci yéen ci la bokk ak ñeneen ak ñeneen waaw ñooñu nga xam ni dafa dundoon ak ñoom ci jamono Cheikh Al Hadj bari na mag ñu ànd ak Cheikh Al Hadj Mouhamadul Mansour. mu ànd ak ñoom ci nga defar ñoo bokk fekk sëriñ Mansour a leen defar ca jag saaw danañ ci agsi incha allah sëriñ Mansour dund ci loolu nag ba bàyyam wan ko ginnaaw 1922 4 la judd 22 waaye de fekk na sëriñ Mansour projet yi bàyyam amoon yëpp la na ko <laughs> li bàyyam bëggoon ci defar ci wàllu diine bi ci wàllu tariqa bi yëpp jaar na ci loxoom mu réglé ko bi gaa waajuri faatoo 1922 ca jeexitu 22 la mu waxoon ak baayam te baayam bi muy tëdd ni ko nanga dem àggale ji sa àlluwa ci waxin ndax nekkoon na yéeneem bëgg-bëggam booba mu bëgg koo mottalil waaw waaye li muy xam-xam na ko ba pare te Xaaji Malik wan nañu ci waxam ni du moom moo jàngal Sëriñ Mansour dafa wax ni sa yuallimuhu llahu ma arada an yaalama yàlla dana ko xamal lépp lu mu bëgg xam kon bu ne bu ne dafay génn pour mottali ji àlluwaam yéene la mottali waaye mottali jiwul àlluwa mu jóge fan nag dem dëkk bu ñuy wax njaago ci góor gi Ahmed Njaay Njaag mu nga àndoon ak ñaar Dudu Ñang ak Moustapha Kanji bàyyi Lamin Kanji foofu ñu wax ni li yi ikmaali dirasatihi pour mu mëtal njàngam waxee déedéet daf doon mottali ji yéenéem mu nekk fa nag diggante 22 ba 25 mu ñibbi si benn yoon toog diggante 22 ba 25 nag daf daan nekk Tiwaawan toogul woon ba benn place dafa daan dem Tiwaawan di dem ci dëkk boobu ci góor gi Axmed Njaay njàkko boobu noonu la ko daan jaabante ginnaaw bi mu ñibbisee nag foofu la problème bi tàmbalee problème bi moo di sharaa bi tarbiyati nafsihi bi nafsihi li ñuy wax naan naka la ñuy yare sunu bopp ci sunu bopp naka la ñuy yarale sunu bopp sunu bopp Sëriñ Mansour tàmbaliwaat ginnaaw yar bi baayam defoon ci moom pour yaraat boppam moom ci boppam tarbiyatan xaqiqiya mu di ko yar yaru dëgg man bi ann man yaxtaara alraxata lan yushaahida alxaqiqata wa man yaxtaara alxaqiqata yaqdi alumra jawaaban saabixan baidan an kulli marfa képp koo xam ne sëñ suur du tax mu jóg loolu xam na ni képp ku bëgg noflaay doo àgg ca yàlla waaye ku bëgg àgg ci yàlla it sa yoon ci tefes toujours yaa ngi ci digg géej gi yaa ngi ci biir géej gi waaye géej ga jën ya taxu ko woon a jóg xam na am na ñoo xam ne ci waas rek la ñu yem am na ci ñoo xam ne ci ngot rek la ñu yem waaye nekk ngot seerul am na lu ko gën a seerlu dootul yàqu mukk foofu nag la sëriñ Mansour gi moon dugg ci biir géej gi nuur ba ca asdaafiya ca lëg lëgg ba moo di jël boppam dindi ci mbooleem lu ci àdduna lu ci cëru àdduna am ba set di féey nag ci biir géej gi waaye féeyul pour jëm ci tefes gi de fay xeeb féey rek pour gën a pour gën a dem daddi daddi nag wuy ji yàlla ci la yàlla waxoon ni yëpp na aadama xalaqtuka li nafsi wa xalaqtu kulla shay'in lak yow doomu aadama dama la bind pour sama bopp waaye li ci des yëpp yaa tax ma bind ko yittewoo ma ba ma yittewoo lépp topp la sëriñ Mansour bari na xale yoo dégg turam sopp ko te gisuñu ko du ñoom yàllaa ko def ci seen xol mënu suñ ca dara bari na sax ñoo xam ni seen làmmiñ rek euh, wuuteeg seeni xol bari na nag ñu seen xol wuuteeg seeni làmmiñ waaye bari na ñoo xam ni seen làmmiñ wuuteeg seeni xol te dañ leen koy wax loo xam nga dégg nga li ma wax kon njarutul leeral Serigne Mansour radiallahu taala anhu ci diggante boobu nag mu jël boppam dem jag saaw ànd sëriñ Moustapha Sy Jamil ànd alxaaji Baba Ñang bu Mbos ànd ak alxaaji Cheikh Ñang bu Ngeet ànd ak Ahmad Wadd góor gi Ahmad Wadd bu ànd ak sëriñ Ahmad Ndiaye Ndukkumaan ànd ak alxaaji Dud Ndaw muy ànd ñoom di leen liggéeyloo seen bakkan nag amalan shaqa ñuy nag liggéey liggéey bu diis ànd ak di leen yar waaye ndox ma ñu daan naan xet ga may leen ñu naan ko waaye sëñ Mansour forcé leen rek ñoom ñëpp ko daan naan sëriñ ma da ci daan naan mu di ca naan waaye sëriñ Moustapha si maa ngi dégg ci benn bànn muy wax ni ndox ma xet ga na mu mel waaye boo ko tegee ci sa làmmiñ dafay mel ni samsam ngay góox di ko naan nee na la sam-sam di jëriñ da lay jëriñ moo tax Cheikh Abdoul Aziz Sy way na ci ne la Malick ñaanoon ndox mi day xamul jagsa waaye ndox mi ku ci naan wér sëñ Moustapha Sy seede loolu waaye nee na di ko gënoon a yéem bàyyam boobu yéem yéem na ko lool muy sëriñ Mansour Sy radiyallahu taala anhu nee na ndox ma boo ko ñamee te ñame ko cëru doomu aadama dafa wex xorom waaye boo ko ñamee ñamee ko cëru yàlla dafa saf sàpp ak suukar teen ba nag gudd lool lool mën nga cee sànni xeer wàññi téeméer xanaa muy soog di àgg ñu di ko booleeg nag di lekk ñamu laaxu daxaar laaxu caaxaan ñu toll jëmmi jamono sëriñ Moustapha nee na toll nañ jëmmi jamono man mal leen ñang ca ndar danaan def ay fiiri rek lu nekk di ko yónnee Serigne Mansour bu mu ko yónnee Serigne Mansour Serigne Mansour Serigne Moussa dem yóbbu ko mu ne ko yóbbul ca gaaña te nga dem ci sa bàjjan aseetu na ma defal laaxu daxaar wala laaxu laaxu bisaab laaxu caaxaan nga indil ma Serigne Mansour digganteem këri jagsaaw ak fa mu nekkoon demee na kilomètre néeg fa mu nekkoon bu tawee amul dara lu ko tiim ci kawam lay taw muy wut yàlla rek ngir la leen waxoon sànq nii seytaane dafay topp nit ba ci li ko yàlla daganalal pour mu yàqoo ci waxtu woo sàggane sa xol rek mu profité dugg yàqal la lu baree baree bari sëriñ Mansour yëg boobu cër nag ni moom bakkanam pour mu nekk taxta muraqabatihi il faut que muy fuglu boppam fu mu toll du ko ñamal mukk lu neex lu weex rek la koy ñamal la ko maam ma leen daan yónnee nag ñoom duut ndaw ak gaañu mag ñooñu ci lañuy ñuy sëgg rek moo tax mu ne taajabtu mimman yabtagi qurba rabbihi wa yashgalu bi ladati sawda qalbihi moom sëriñ Mansour nee na li koy yéem ki bëgg a jege yàlla ba pare bëgg bànneexu bakkanam kooku yéem na ko kon nag Mansour fala tushghilanna al-qalba Mansour bul soxlaal sa xol bi bi ghayri ma yuqarribu lu dul lu la yóbbu ci yàlla na nekk sa soxla guddi na nekk sa sa soxla bëccëg wa in taku mashghula al-jinaani bi ghayrihi yow Mansour maa ngi lay xamal ni moom mooy wax ak boppam de waxtu woo soxlaa leneen lu dul yàlla fa inni mashghulul fuaadi bi hubbihi man Mansour de yàlla rek laa soxla yàlla rek laa sopp dundoon nañ ko ñi nga xam ne dañu jógoon ci wàllu tasawuf nga xam ni seen sikkar yépp mooy laa ilaha illa allah xam nga laa ilaha illa allah bari na kuy wér di ko wax wala nga di ko def te amoo ci cër ba léegi déedéet ni ko mag ñi daan defee buñ ko daan def dañuy ànd ak ay xaalaat xaalaat yooyu ñu daan àndal mooy buñ naan laa laa gi fii lay féete bu ñu dikkee ci ilaaha mooy fëgg bunt bi nga ni illallahu yàlla yow rek laa soxla waaye fii ak ànduloog nii sa càmmoñ laa indi ilaaha mu nekk ci buntu xol bi nga fëgg yàlla ni kana mu ne illallahu yow rek yow rek yaa fi nekk bu demee ba sax nag nga saxo allah allah di suuxat nag di suuxat mooy ismul jalaalati dafay dàq lépp lu fi nekk gaa ñi nee nañu deux cent deux mille six cent quatre vingt dix ñu ni deux mille six cent quatre vingt dix ci biir alquran góor gii ma leen tuddal nag tudd na ko ba xobi garab yi ànd ak moom di ko tudd da nga daan toll foo toll ñu ne nga dégg dëgg bi laa ilaha illallah ba muy gémmi gi di fuur ñu naan waa Mansour te di nga toll un kilomètre di ko def demoon na ba ci benn yóbbu nañ ma ci benn place ni ma fii xunt mi ci la ñuy waxoon Seydi Hadj Mouhamadul Mansour fi la làqu woon ba ñëpp defa ne nekkatu fi mu dugg ci biir xunt mi di tudd yàlla te kat digganteem ak kër ga gaa ña fa nekkoon un la waaye baatu yàlla riir ga dañ ko daan dégg comme ñu xam ni koo xam ni sorewul la sax centimètre mu di ko tudd bu baax a baax moo tax mu dem ba ca biin yaa rijalallahi hubbu laysa gayrullahi rabbu lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibbu noonu la ko daan doxe waay waaye waay góor yàlla yu jóg leen nelaw amatul jóg leen jóg leen yàlla rekk fi nekk di buur te du ngeen mën a am li ngeen bëgg ci yàlla mukk lu dul li ngeen bëgg li seen bakkan yi bëgg da leen ko xañ jóg leen li ci gën a yéeme li ci gën a yéeme sëriñ Mansour dem na bay wettali ko ay arwaax wàcc fi ay jëmm arwaax yoo xam ne ñu nga ci àllaaxira mu ñëw ci seen biir sëgi Tiwaawan yi sëñ Mansour daan na ànd ak góor gi alxaaji mbay ba mu agsi ci buntu sëg yi mu yoral ko satalaam mu ne ko demal tëri ba fajar tarbiyaam yi ci ëpp mu ngi ko defee ci sëgi Tiwaawan yooyu kon ngeen gis ni nekk mbirum yàlla pour am ko lu jafe la kon woy yi paase yu di ma waxoon ni euh, daf ko yéem lu la yéem mu ne ñii te wa bànneex mu ngi yee képp koo xam ne ki yaa ngi bëgg jëm ci yàlla te bëgg àgg ci yàlla la la cay yóbbu mooy nga yittewoo toroxal sa bakkan sonal ko pour mën a àgg ci yàlla mu jël nag ay aayaat teg ci kanamam mooy yaa ayuha alladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila taqwallahi la sëriñ Mansour jëloon dana ñëw ci ay abyaat yi teg ko muy kanamam teg ko ci kanamam muy rekk wasilaam digganteem ak boroomam ginnaaw li ñu wax ci moom ak leer gi mu namp Cheikh Al Hadj Malick namp ko it ci turandoom muy yonent bi Hadj Mansour mën nga wax ni biiram Sayyiduna Muhammad la woon biteem Cheikh Al Hadj Malick la woon kulóoram Sayyiduna Cheikh radiyallahu taala moo tax mu ne bi ma ittuqa wal azmi wa sabri uslatin an ilxalqi fashrab waltaduuman bi xubbihi waaye wa iyaaka iyaaka riyaasata ya fata tazallal fa inna al mar'a yurda bi ujbihi nee na attuqaa attuqaa ci seen sens ñoom mënuma ko firi waaye attuqaa ci sunu biti ñun mën naa ko firi mooy nga bàyyi lu aayul ngir daw lu ca juddoo lu aay bàyyi lu aayul ngir daw lu ca juddoo lu aay li nga moom yëpp bu ko soxla bàyyi ca dara ngir daw lu ca juddoo lu aay loolu mooy taqwallaahi ci ñun waaye ñoom moom la bakkan soxla lañ koy xañ ngir taqwallaahi saxu waaye bu dee ci ñun la yonent bi neen taqwallaahi ci jaami simple yi mooy bàyyi lu aayul loo moomul sa bopp ngir daw lu ca juddoo lu aay ëllëg lu aayul de waxuñu la waxuñu la ngay def lu bon bàyyi lu bon kenn terewu la lu bon la la yàlla wax ni nanga ko ca ragal mooy lu aayul nga bàyyi ko fa ngir daw lu ca juddoo lu aay waaye bàyyi lu yàlla tere nga naan ragal nga yàlla dañ la koo tere danga nga cee dem sañu laa cee dem moo tax baayam daan wax ni man Malick bëgguma xam li ma moom lépp naa naay dund ci li ma moom rek ba mu jeex wala ma dem bàyyi ko fi ndax bu xamee la ca ginnaaw la mu moom rek laaj ko moom te bu boobaa xol moo tax li mu moom yëpp xamu ko woon da daan dund ci la mu moom ba dem مالا وعلما مشريا لفقير هاديا لجوال يبنى عثمان فكم وابتا مئات كم وابتا ألوفا كم وأبت قرات يبت سيد الحاج مالك باذلت مالا وعلما مشريا لفقير حبيا لجوال يبنى فكم وأبت مئات كم وأبت ألوفا كم وأبت قرات يبت سيد الحاج مالك هل للشيوخ الكائن جلت مراتبهم إلا التلاء منه إلا هنا عثمان فكم وأبت مئات كم و لا إله إلا الله كم وأبت برات سيد العاد مالك كم عبيد زاهد كم عالم ورع كذلك واسين لولا ما فكم وأبت مئات كم وأبت الله fan تلت بدفلني قال كم عابد زاهد كم عالم ورع المهتم سالك واصيل لولاك ما كان فكم وابت مئات كم وابت ألوفا كم وابت قرات يا ابن عثمان مولى كم عابد زاهد كم عالم ورع المهتم سالك وافي للأولى كما كان فكم وأبت مئات كم وأبت ألوفا كم وأبت قرات يا ابن عثمان حوسى وصالم قلوب وتيلا أصفياء أولئك القوم أصحاب النبي وأولئك أصحاب التجان وأصحاب بني عثمان كالقوم أصحاب النبي وأصحاب التجان وأصحاب بني عثمان أولئك القوم أصحاب النبي وأصحاب التجان وأصحاب بني عثمان جزاكم الله خيرا أصحاب المكانات أصحاب ابن عثمان بماء التقى والعزم والصبر عزلة عن الخلق فاشرب ولتدوما بحبه وإياك إياك الرئاسة يا فتى تذلل فإن المرء يردى بعجبه سيد مالك رضي الله تعالى عنه ci misaal dafa jëloon boppam samp di wax ak boppam waaye ci li muy wax ak boppam it ku ànd ak moom mu ngi wax ak yow mu ne bi ma it tuqaa waxul bi taqwa ragal yàlla ak ndoxum ragal yàlla moo jara ràññee ma it tuqaa ndoxu ragal yàlla ak ragal yàlla dafa jara ràññee déedéet mu ne walla azmi ak dog gumat sëkk wa sabri ak muñ muñ nag la kenn mënul ah. muñ du passé bëri bu bu génnee ci dënn rek tuddatul muñ ah. te ni mu waxee muñ ci nit ku tàmmul kaani ñu toggal ceeb bu tooy nga war ko ndogoo ah. sànni ca dogu yàpp ku piir am nga yóotu ceeb bi jaawale kaani ga ak dogu yàpp wa mu fees dell te tàmmoo kaani nga ne ko palam sex Mansour boo dee gor sa tuñ sa tuñ du yëngu wextan la doo du feeñ ci sa tuñ du feeñ ci sa kanam rankoñ du génn danga daan tekk ak moom rek war na ko wastaayinu wastaayinu bi sabri Mansour nee na comme yàlla nee na ku mënta muñ mënoo julli ku mënta muñ mënoo julli waaw ahlaka bi salaati wasta wastabir ku mu julli moo tax inna allaha maa ishaara la nag jëlee ci lu bari foofu laa ci yam ayaa saaxi sabran kon la ko waxoon wal saburu sa yaxkumu ma bayna al ibaadi xabiru waaw oh, moom ayaa saaxi sabran ayaa saaxi nag waaye tax mu nekk waaye ayaa saaxi bii la ci jublu waaw yow sama àndandoo bi góor gi naa la ay sa dégg naa la sabran nee na ko góor dafay muñ nag cëru góor mooy muñ waaye loo la xew rek ñëpp yëg ko nee non non non non waaw góor dafay muñ dafay muñ moo tax mu ne kon الكريم غيور يا مالك الدين إليك فقيرا أتوب وارضى ما عليت جديد Mouhamadou Mansour Simaari nee na atuubu arda ma qadayta jadiiru ayarda adibun an yakuna li gayrihi mutian wa yastaxi bidaaka shakuru na ñëpp ni nii sayyidul qawmi nee na yaa xaaliqi inni ilayka faqiiru atuubu wa ardaa maa qadayta qadiiru qadiiru waaw qadiiru yaa xaaliqi inni ilayka faqiiru atuubu wa ardaa maa qadayta qadiiru jadiiru aw qadiiru جدير جدير يا خالقي إني إليك فقير أتوب وأرضى ما قضيت جدير أيرضى أديب أن يكون لغيره مطيعا ويستحي بذاك شكور وما العبد إلا, إلا في مشيئة ربه تدور به الأقدار حيث يدور وقد جفت الأقلام والحكم نافذ عليه بصير خالقي إني إليك فقير أتوب أعظما عبد العزيز danaa ci dikk danañu dikk ci woy woowu incha allah ci li ñu programme la bokk Euh, Serigne Mansour lépp lu mu lu mu la digal boo dundee ak moom maalu neena na jëf yëpp yëpp yëpp bi sabri muñ moo ko lal ñu ne ko waaw ginnaaw muñ lan nga koy dëgg lan nga koy nooyalee mu ne tuqa bi sabri wa waaye nag wala taltafit nee na gor gor du geesu gor dafay fiir ca la ko tax a jóg moo tax radiallahu taala anhu am na lu ñu fekkee ci dundam xëy na booba ràññee gi demewul noonu waaye ñu naan sëriñ bi bu xasee ba génn néegam dootul dellu dootul geesu yàllaa ko yëkkati kon jeneen yàlla dootu ko geesuloo bu sànnee kaalam gi ginnaaw rek oto ba rek du geesu du taxawati moo tax innal karima gor la ko tax a jóg daf cay am fayda gor la ko tax a jóg def cay fiir gor la ko tax a jóg na ko sonnloo mbaa mu wax loo ko waaye boo jógee ci dara ñu bàyyi loola ko keneen bàyyi loola keneen bàyyi loola kañ ngay àgg fi nga jëm lu bari loola leen tàddeloo mu ne nag moom ci woy njëkk bi bi maa it tuqaa dafa dénk kan la dénk boppam moom Serigne Mansour dafa wëlbatiku di wax ak boppam di fàttali boppam la Sayyiduna Muhammad turandoom waxoon ñii ne Abazar ñii ne Muaz ibn Jabal ittaqillaha xaysuma kunta foo mën a nekk ragalal yàlla man bi may bind fii ba agsi fii dama wax ni Serigne Mansour ndeke Paris ak makkaayam ci moom ah. Paris ak Màkka waaw waaw borom cër ba nekk Màkka muy muy yàlla la muy sàmm Màkka noonu lay sàmmee boppam ci France nekk France du ko tere du ko taxa mooy yàlla nekk France du ko taxa mooy yàlla du tax mu nekk ci lu yàlla bëggul moo tax ma ni nekkam Màkka kan mooy wéttalam yàlla ak rasulullahi nekkam France kan mooy wéttalam yàlla ak xam nga am na ñoo xam bu ñu tukkee rek soppiku xam na ñoo xam bu ñuy génn <laughs> ñu génnee rek boo watul nga yalwaane leen dootoo leen am mukk fii umumin mawatini nag ci mboolem watan bu mu la fekk réew mu mu la fekk wala place bu mu la fekk muxtalafil ak melo mën a nekke wa maa kulli naasi ak nit ñu mu la mën a fekk yow Mansour jàppal ni yàllaa ngi ci sa kanam di la xool moo la bind te amul jotu caaxaan kon nag bul caaxaan moo tax mu ne wattaxidha yow Mansour jàppal ragal yàlla man muy escalier ba xam ni tarqa da ci yéege ila aala ba kawe lool darajaat yi gën a kawe jàppal ni ragal yàlla rek moom nga mën a jaar ba àgg ca waaye lu dul ragal yàlla doo du sotti mu ne ko fii ak échelle boobu mu ngi fi doonte ne ñaari pied la nee na nga taxaw ba loola sotti nga bañ a daanu yow Mansour am maa nag am maa nag ragal am maa ragal ragal ragal ku gëm yàlla du ko def ah, ah. boo daje gaynde ci digg àll bi sax doo ragal lu tax mu daan sóobu loolu Serigne Moustapha si ci dex gu fees del la ki jësig tàggat la tàggat la war ko ni ku dul yàlla jarta ragal ñépp ay mbindeef lañu moo tax xam nga ni ñoom jaamuñu yàlla pour aljanna wala pour safara ragal safara aljanna dañ ko jàppe mbindeef na li ñoom jarul te ragal moo tax daawuñu julli pour yàlla daawuñu wérd pour yàlla daawuñu julli wérd it pour tocc tocc pour ñàkk dépense wala daraja ju ñu bëgg taxu leen war a jóg ñoom yàlla rek a leen taxoon a jóg moom nag mu bokk ca mu ne ko sullam boobu safaanam bismillah loolu nga wax sa baay alxaaji Mansour radiyallahu anhu dafa woo benn doomu baayam Babacar Fall lolli Abdou boolee ko jur ne ko baabu seen sa baayal xaaji Mansoor ñaare buy bànneexu ci ki muy waxal bu tuddee Babacar baabu la koy wax ba ci sëñ mbayam mii sëñ mbay lépp ci li ko baayam da tuddi wax waa baabu mu ne Babacar Fall lolli baabu mu ne ma maraabat ma ci kenn wooyu sa baay ni baabu mu ne marabat mu ne ko yënga nga ni doomi soxna yi bari nañ ci réew mi mu ne ko waawaaw mu ne ko yëg nga ni li ñuy yëngal bari na mu ne ko waawaaw mu ne ko waaye baabu man doomu soxna bu toogee ci der ne allahuma adduna tax rek defatuma ko nawle kon kon kon kon ah kon kon ma doon dafa am sa benn bàjjen soxna Fat si la tudd Jolof la dëkk ca Mbëllëxe dafa amoon jàngoroy lox nii buy wax ak yow day lox mu ñëw seet ci sa pap Mansour cër yi de Cees ca Ndakaaru dal ca kër ga ñoom jolof jolof yi na naati Mansour mawlo ko saaba yi ko dar tan na awala mawlo ko ko saaba yi ko dar in loxo yi ca kaw Maodo ak saaba yi ko dar tan e wallahi Maodo ga ya ko dar tan na ci man mi daa naan ñi fi ne mbër moom ci moom góor foo dégg ñu ni baay as ni sëy Mansoor foo dégg ñu ni baay as ni sëy in loxo yi ca kaw foo dégg باي عزم زيد منصور مولى مصابي قدر تهمنات منصور ميدان ne mbër mu yam ci moom góor foo dégg ñu ni baay aas ni seydi doo ca kaw foo dégg ñu ni baay aas ni seydi Mansoor wallaay foo dégg ñu ni baay aas ni seydi Mansoor waaye dabax rek mbay mooy nawet doo ca kaw Abdul Aziz rek mbay mooy nawet wallaay Abdul Aziz rek mbay mooy nawet loxoy ca kaw Abdul Aziz rek mbay leen loxo yi ca kaw Abdul Aziz Racky Mbaye def leen nii waaye mooy nawet kumar mën a abit mi ni tekkit moo ne tëlay daan gaañi bëgg leen Maodo nen du bare xëy bëgg leen Maodo mu toj gaañi bëgg leen تمشى لخدك وقاني وقل المهدو نند برك قاني وقل المهدو نند برك قاني وقل المهدو نند برك قاني وقل المهدو نند برك na ñëpp ni nii nu magal Cheikh El Hadj Mouhamadou Mansour Sy Malick rahibal manuuni tiit lena xanaa dogal bu yegg si la kull muhibbin jaaxle na jëfën ji fii dem lena miskin réew mi ñàkk ngeen fajaani aajo jaaxle ngeen ahlu Tiwaawan jooy la leen Mansoor Sëfi Ñaŋ fàttu na Thank <laughs> you. Mansour Abbas yéen ba dem ba doon daa dem ci ci ngërëm juróom te yaa ko sopp sa doom te yaa leen ko doon ñaan. kon ñëpp ni nii nu magal sayyidul qawmi Cheikh El Hadj Mouhamadou Mansour Sy Malick Mansour a jeexal xeeti muñ jaaxal na bépp xol bu bañ ngur si gor si reyul farul iñaan bu génnee diire lay defar alaaji maalik moo jur mooy sa najaay te yar moo xamal yoonu si kar si mat nga doora sam bëgër manjoora القوم مرام يا ها ها ها صدوح ما كوي وين المنون تيد لنا خنا دوال بو يكسلا كل محب جاخ لنا جفم جفي ودمنا له بحر العلوم نيسنا تاي lamp tijaan yi xëy na fay yaakaaru jaam ñi sooy na wooy seetal ma lii gëlëm la na miskin réew mi ñàkk ngeen fajaan yaajo jaaxle ngeen elu tiwaawan jooy la leen Mansoor Safi ñang fàttu na Cheikh Alaaji Mahamadou Mansour Sy Maalik donn na Maodo donn mbay doon naale ñaari demba ya demba bunna demba matti Mansour si maari garmi la miskiin جزاكم الله عنا خيرا الحاج عبد الله سمار نينا كان حمولا صبورا يا تدن بباخ وحاملا كلنا من بدون ملل كان سهلا جوادا لينا فتنا من جاء لتوت حاجاته مفجر منصور مالك والبيادي برم جلفو من كبن مجخ والبيادي جزاكم الله عنا خيرا يلنا يلا فيلن bu ko defee Mansour nee na di wax ak boppam di jàjji boppam di wax ni nit ci melo mu mu mën a nekk la ko ca war a gunge ca kanam ak ca ginnaawam war koo sàmm ci càmmooñam ak ndeyjooram nee na mooy di ragal yàlla takkoo ko jàpp ko it muy sa escalier booy jaar wala sa échelle booy jaar pour dem ca yàlla neena loolu fii maa ngi ñëw nit ki nee na féeg nit ki euh, tabaarakallaahu yal nañu yàlla boole jàppale nee na feeg nit kii mu ngi mu ngi ànd ak loolu ñuy wax waa te nee na nal ko na nga ko nal jël ndox ma jëriñoo ko nee na boo ko dee jëriñoo di ko naan mu nekk ci sa biir téye sa put nga teg ko ci sa kanam mu di la wettili teg ko ci sa ginnaaw mu di la wettili nga teg ko ci sa ndeyjoor mu di la wettili nga teg ko ci sa càmmoñ mu di la wettili yow Mansour bu la ragal yàlla googu doo dee wettili nga jël eseel def ko muy sa yéegu nga def ragal yàlla googu muy sa yéegu yéeguwaay pour nga àgg ci yàlla nee na fa nga jëm du sori waaye boo ci boolee leneen lu ko rax rek di nga bëgg a dem te doo dem te dana la tardeel nee na nanga ko jëlit def ko muy sa kiiraay ci diggante a gaafi bakkan ba bakkan du la mënal dara seytaane it du mën ci yow dara nee na nga jël ko def ko ñag ba yàlla bañ la cee mere yow Mansour mu ne Mansour mu ngi wax ak boppam ba tey ni ko waraqib rabbaka fi jamii tasarrufatika na nga fuuglu sa borom ci mboolem sa yëngu-yëngu boo ko fuuloo fuugloo ba pare nag xaasib nafsaka rek leel sa bopp ci lépp lu ndaw ak lu tuuti ak lu mag lu mu tuuti tuuti rek la ko sa bopp ndax yàlla du cuune dara tax foo taxu ko jóg kon loo def ci sa digganteeg sa borom rek rek la ko mu ne nga rek la ko nag an kulli saghiratin aw ala kulli saghiratin wa kabira xisaaban nga rek la ko rek la goo xam ne yardaoha dana ko delloo ginnaaw da ngay téye laab rek xëcc ci bakkan bi ba mu delluwaat ginnaaw ba yëg ni am na doole ju ko téye muy doole sunu borom subhanahu wa taala nee na ba nga bañ ko mooy mu ne ko nag wa taallam Mansour jàngal boppam lay waxal jàngal mu delluwaat boppam lu may jàng mu ne umura diinika jàngal sa mbirum diina bu ko sàggane mukk jiital ko ci sa lépp kooku mooy tarbiyatu bil himma da ngay jàng sharia jàng alquran dunne sunna si yonent bi ommatu ci leeram dem tarbiyatu bil xaal nag mooy azkar yi mu daan def wéttali ko tariqatu tijaniya ba am ca diplôme mu mu moo tax dafa mujjoon tarbiya bil himma moom la daan defee bil xaal himmaam la daan yare xaalam ginnaaw bi mu jàppee ci leeru sharia dunde xaqiqa mooy di tudd yàlla fu mu toll moo tax ba li mu am ci tur yàlla yi am na bu mu doon tukki benn tukki bu mu doon tukki ci biir réew mi di dem ba si yàgg oto bi mu nekk di yëngu mu ne ah sama gaañ yi daal ndeke ñu ngi ci caaxaan yi ñu ngi fo ba léegi ñu ngi fooy ñoom daal ay liir yu feragoñ lañu xame wuñu këyit ak lu ñu war jàpp xam nga liir dafay raam safara dara xamewu ko mu ne kooku man defoon naa bàyyi na ko ci suufu tànkam ndeke mu ngi foye yi ba léegi benn jarul tudd nag boo ko tuddee àdduna tukki moo tax mu ne wax ak boppam ni ko Mansour yittewool jàng sa diine ah. tukki bu mu doon tukki buñ ma nettali ba mu romb benn place am kuy foyee oto ba mu ne ah loolu de yëfi liir la xamewul safaraak ndox lu mu jot téye waaw waaw benn waaye rekk doon yëngatu noonu ci xam-xamu àdduna waaw am na tur am na dëkk am na yoon it xam naa bu ma tuddoon yoon wi ngeen jëli ko waaye foofu rek baax na mu ne Mansour na nga jàng sa mbirum diine ba pare delluwaat di laaj boppam waaw lu tax may jàng sa mbirum mu ne xataa la taqaa fil ba nga bañ a e, juum ci li ngay liggéey bañ ci mooy yàlla te nee na ku jàngul nag doo jóg mukk mukk ci def garawaal yi nit ki dafay jàng ba xam ne bayna shariati wal xaqiqati wa tariqati waaw xaqiqa ak sharia ak tariqa sharia amrun wa nahyun mooy sharia tariqa qasas la xaqiqa tawxid la te lépp nga ci biir alquran lu la alquran sant moo di amr lu mu la tere moo di nahi muamalaat yi ngay jëflante ak doomu aadama yi ci diggante takk ak miraas jaay loolu mooy sharia amma al qasas yi nga xam ni mu ngi ci biir alquran bennul suratul kahfi waxuma sax waxuma euh, abnaul waxuma ashaabal kahfi waxuma it xaarunaak waxuma it euh, yaajuj ak mais dellul ci biir qisas yi nga xam ni mu ngi ci suuratul kahfi ah xadir ak Moussa xadir ba mu reyee xale ba lu ko Moussa wax ah bi xayri nafsin charia la waaye xaqiqa àggu ca moo tax moo tax loolu jëfin woowa nag kayfa wasala ah kayfa wasala kayfa ijtahada waaw kayfa naja noonu ngay laaje bu ko defee fa mu jaar moom xadir ba am la mu am te Moussa xamu ko loolu la ñuy tuddee tariqa kon boo demee ci tawxid nag qul huwa allahu ahad ñëpp jàppe nañ ne ku dee rek ko tax a jóg te kii ñuy waxtaan waxtaane li mu jëfandikoo ci lixlaas kenn xamul lu mu toll am na benn ñaan gu ndaw gu mu defar li mu jëfandikoo ci lixlaas kenn xamul lu mu toll te lixlaas ñi ko jàppe pour néew bu ma dul bu dul Sénégal ñëpp it ñi ci ëpp moom la ñu jàppe te lixlaas néew taxu ko jóg lixlaas néew taxu ko jóg lixlaas néew taxu ko jóg lixlaas dantité yàlla la boo jëloon carte d'identité néew yóbbu ko ca banque ba pour mu téere xaalis bu ñu xamee ni du sab d'identité danañ laaj fu borom nekk di nga ca sonn trop lixlaas mooy d'identité yàlla <laughs> ayatal kursiyu mooy permis yàlla bi muy dawalee àdduna laa taaxuduhu sinatun wala nawm qul illahuma malikal mulki mooy carte gisu girisu yàlla bi muy doxale addunaam ku ko neex mu yëkkati la ku ko neex mu wàcc la malikal tuutil mulka man tasha wa tanziul mulka mi man tasha kon wa yafaalu fi mulkihi ma yasha taala al ilah wa jalla al akam fama in yuqalu limaada faal wa lim la wahal la biha wahtakam يفعل في ملكه ما يشاء تعالى الإله وجل الحكم فما إن يقال لماذا فعل ولله لا بها يحتكم هو جل الحكم فما شاء كان وما لم يشاء فممتنع كيف شاء احتكى ويجعل من ملكه ما يشاء تعالى الإله جل الحكم ولم لها بهذا احتكم ولو أن كل الورى أجمعوا ولو أن كل الورى أجمعوا على مطلب دونه ما استطعوا ولو أن كل الورى اجمعوا على مطلب دونه جزاكم الله خيرا ولو أن كل الورى أجمعوا على مطلب دونه مصلحة فما يقال لماذا فعل ولم لا هل بهذا احتكم لا وهل لا بهذا احتكم ولم لا وهل لا بهذا احتكم ولم لا وهل لا بهذا احتكم ولم لا وهل لا بهذا احتكم جزاكم الله عنا خيرا kii ñuy waxtaane kii ñuy waxtaane muy Mouhamadoul Mansour Malick ba mu xamee ni walaw anna kulla alwara ajmau ala matlabin duunahu mastatam ba mu xamee ni àdduna bi yépp ni ko xadis ba waxe bu ñu àndoon pour xañ la lu yàlla ànd la yàlla ànd rek ay am bu àdduna yépp àndoon it pour bëggal la lu la yàlla xañ dara du sotti moo tax mu jël léppam rek jox ko yàlla ah bu ko defee sëriñ Mouhamadul Mansour moom radiallahu taala anhu nee na ci ci woyam wi rek bi maa ittuqa wala azmi wa sabri wa uzlatin waaw nee na nee na ku ñemewul weddu àgg ci yàlla te jamono tey jii la bàyyam waxoon ni xiilin waqaala rek wala moo dem wax nañu nee nañu waaye kenn du ci wax lu la wér kon nag jóge ci te dem beru ji te wéet ak sa boroom bu ëllëgee yaag moom rek kay wéet moom xamoon na ni minal bidaaya mook yàlla nekkoon mook yàlla mas a nekk mus ñoo taqali ko benn yoon ba ni ko yàlla jële jox ko waay juram muy kado waajuram xam ni dénkaane la moom it mu xam ni dañ ko dénk waajuram moo tax mu daan wax ni ñaan gu nangu la wala moom muraat la mu xam ni ki ñu ko dénk def na ci moom kemtalaayal kàttanam mu jógit moom ci boppam pour la def ci moom mu war ko wéyal ci àddunaam ak alaxiram moo tax mu ne bima ittuqa waaye waaye taqwallahi ndeke ndeke am na am na lu ñuy wax ndox mu ñu war a nal pour naan ko ci loolu la dund ba Malick dem ba Malick demee mu ànd ak moom mu wéy ca la mu waxoon ak baayam dem génn mottale ji alluwaam ci waxin moo ne loolu am na ku mu dal de am na mag mu mu dal Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu ba muy jàng di jàng ba ñaari baayam faatoondoo ci benn bis benn waxtu baayam ak ndeyam mu toog ba def la mu war ci ñoom ñëpp dafa laxasaat jàngi fa tashabbahu in lam takunu kon fa tabarakallahu ci yoon wala jaar ci jamono bu amee jafeñ-jafeñ rek teggi na yoon wa koo gis mu sonn dañ na wax ni moom la àndaloon rek teggi na yoon wa waaye bu ca tegoo daram du manqué te it ku doylu lay nekk ku doylu lay nekk moo tax mu jëloon ji yunajji la alladina taqaw bi mafasatihim laa yamassuhum suu wala hum yaxzanoon xam nga ci taqwallahi ci ngay mucce ci li yàlla tere ci taqwallahi ci ngay mucce ci alalu doomu aadama yi ci taqwallahi rek nga ciy mucce moo tax mu ne ku ragal yàlla kenn du la jiiñ yëfi jàmbur doo dugg it lu sa yoon nekkul yàlla dellu wax ni wa man yattaqillaha yaj'al maxrajan maxrajan nag sama mag ji xam na ko maxraju sëriñ Mansour foofu lañ ci yem wa yarzuquhu min xaysu laa yaxtasib inna allaha maa alladina taqaw walladina hum muxsinuun yàlla mu ngi ànd ak ñi ko bàyyi xel yamuñu ca bàyyi xel ga waaye lu rafet lu nekk ñu ngi koy jéem ak ña ñu nekkal loolu mooy bi maa it tuqaa loolu rek laa ci doon bëgg leeral waaye léegi ñu ñëw ci wa iyaaka iyaaka riasata yaa fata Mansour mu ne muy wax ak boppam naan ko sa baay de bëgguloon ku ko jiital ndax olof dafa bëgg ku mu toñ lool waaye yow bu ko xalaat moytu ko moytul ña la cay yóbbu ah. waaw tashtarin na ko bëgg njiit bàyyi ko bu ko topp te da woo nag lu lay yëkkati ci sa diggante sa borom mu kawe lool Cheikh nañu bëgg àdduna moo di bopp alalu defkatu njaaxum yi ci àdduna bëgg àdduna ñàkk doylu xam nga ñàkk doylu waxoon naa leen keroog mooy tax nit di rey nit di rey boppam wala di rey mbokkam wala di rey doomam moo tax nit di jaay bokkam moo tax nit di war bokkam moo taxit boroom xam-xam bi trahir sees ba mu toogoon di jàng ak bañ koy jox licence moo taxit doomu soxna ji ci jamonoy tey teg tànkam ci sharia ngir suul ko sulli lu dul sharia moo taxit Abdou Aziz may tuuti moo taxit nafiq yi bari léegi bari nañu jaay seen ngor bari na ñuy fëgg dal di nit bari na ñuy waxal nit te du dara lu dul mu am ñu jaay seen bopp ba jaratu du dara te bu ñu duggatul ci kaadaru nifaaq ñu mën am dara ñu far ci yàq seen diine yàq ci seen ngor yàq ci seen juddu tax njàkk doylu réy na wa min qabaa'ihi yajzi insaani nee na ñaawteef ñaawteef bu bëgg bu nit àggee ci darajey bëgg àdduna àgg na ci ñaawteef foo xam ne fi mënatu ko weesu may ma tuuti waaw ah. bu ko defee fa fa moo tax mu ne wa min chiyamil axyaari dafau mafasidin bihim yata assa man safa nuuru lubbihi nee na bokk na ci jikkoy gaa yu baax yi gaa yi yàlla yu dëgg-dëgg mooy lépp lu ñaaw ñu fexe tàqalikook loola te ñàkk doylu lu ñaaw la bëgg àdduna dafa ñaaw na nga ci pos sa bopp bëgg njiit dafa ñaaw bëgg jiite lu nekk nga nekk ca kanam dafa ñaaw kon nee na dellul ginnaaw te jikkowoo jikko ñu baax ñi nee na boroom xel mu rafet boroom xol bu sell loolu la war a mel moo tax mu ne alayka bi fialil birri wasxab asxaabahu wala wasxab saxaabahu abdu àndaloo yóbbu na nit ñi fu nekk léegi wallahi xoolal wasxab saxaabahu boo bëggee di def lu baax da ngay seet ñay def lu baax nga ànd ak ñoom waaye boo àndee ak ñu bon demal ci mbaarum tëgg mi dem ci bitig bay jaay parfum kenn ku nekk di nga jël ci moom la mu yor bu dee parfum dana la xeeñ bu dee tëgg gi sa saxaar sa dana la rey mbaas bu lakk moo tax boo bëggee baax da ngay moo tax fal yanzuril mar um man yu xaalil la rasulullahi wax sëriñ Mansour ni kon nag boo bëggee baax dangay ànd ak defkata lu baax ya te di ko jéem te nag waraaxe xuquqal mar i te ki nga àndal nag nga sàmm ko sàmm nag xaqam ci yow rawatina nag bu fa nekkul nee na xaadir min abnaa zamani nee na nga way moytu doomu jamono ak seen njaboot bi jiddin na ko def ci farlu nag nee na tas tasxab bul ànd ak mukk aradila xisbihi bul ànd ak ña doye di mukk ci ginnaaw xam nga ñoom ñoom nan ñan la ñu jàppee doomi jamono xamuñu ñun ba tey xamuñu doomu jamono ñi maa ngi di wax doomi jamono mooy ña ngay àndal jàkka ja loolu la ñu la sëriñ Mansour wax ne na ngay na nga leen moytu ñi ci des kañ waxul waxul sax jëm ci ñoom waaye dangay ngay àndal jàkk ja bis bu nekk ñu dëkk ak yow guddeeg bëccëg am na lu nekk ci ñoom waxtu wuñ la ko wàllee dootoo dem jàkka ja nee na nag yóbbal nee na yóbbal li ma leen waxoon sànq alaaj Mansour màkk ak français yam ci moom mu nii di ko waxal boppam wa zaadu tuqa yakfi l musaafira umrahu ida kaana fi charqi l wa garbihi mu nekk penk wala mu nekk sowoo ci bokk yam ragalal yàlla rek boo ragalee yàlla àgg mu ne nag yow yàlla wax naa ak sama bopp maa ngi céem waaye mënuma ci dara waaye bi jaahi abil mansuuri alxaaju malikin mu middi bani da dahri turan wa qutbihi maa ngi jaar ci kooku nga xam ni moom nga ma booleel sañu maa teggi sañu maa teggi lam yashkur ah, abdi ida lam yashkur man ajraytu ni'mata ala yadayhi moo tax gaañu bu ñu ne foofu bokkaale la du bokkaale li ma am li ma xam ki ma fi jaarale ba tey ma mën a toog di yedd sama bopp ba agsi fii di jéem sama jéem jooju mun munta sotti te yow yàlla àndoo ci waaye maa ngi koy jaarale nag ci bunt bi nga xam ni moom nga ma jaarale moo tax mu ne mu middi bani da dehri bari na bari na lu defaru ci réew mi ak ñu defaru ñu defe ni feneen la te fekk Maalik ak mu doomam jëla jazakumullahu xayran jërëjëf jërëjëf mu ne alayhi waay yàlla maa ngi jaar ci kooku waaye bi ma jaaree ci moom ba tudd ko ba pare maa ngi lay ñaan rida rahmaani yow yàlla sa ngërëm yàlla bu mu dañ mukk di dottiku ci kaw góor gu tedd gii ma jaarale fi ma jaar te it réew doom bi kat gaañ ñi maa ngi leen di xamal ni ku fi ñëw jaar fa nga war a jaar doo delloo boolu nen mooy doo delloo loxoy nen ku jaar ci si Xaaji Malik jaar ci fa nga ca war a jaar rek na nga ko war a jaaree doo delloo mukk loxoy nen mu ne nag kon Abdul Aziz abal ma sa xol ma ma wax la kan axi airni bi uznil qalbi mustamian yu fitka man kaana fi l axwaali naqaada Abdul Aziz abal ma sa xol boog Mansour abalal sa xol Mansour mu wax Mansour lan moo koy defaral ëllëgam koo xam ni ki jàngal nañu ko alluwa ji nga xam ni moo gën a jafee mokkal ci alluwa yi ba mu miin ko bu ko mokkalul nit miin na ko ñëwal ci man ma wax la foo jaar ba mucc ci sa melo wi nga nekk te dama cay bu ma la ci dindee ba pare kat nee na kii bi nga nekkee përëm yi nga nekkee bu ma ko seppee ci yow ba pare du ma la bàyyeeg xottu nen dama cay jëmbat wurus wu ñuy wax durru wala sadaf te kat nee na yóbbal nag yóbbal bu diis baax na ci fi mu toll nii nouveau franc ak CFA ak dollar bu la ci gënal dollar da na lool bu la ci gënal laa la laaj dollar da su na nee na dollar bi gën ci dollar yi lay def ci sa xol muy jikko bu rafet nee na waaye nee na mënuma koo def ci yow ndax danga nga tilim kon kaay nga summeeku ba set bala ngay solu waaye nee na bu fekkee ni bu buñ la jox boo ko boo summee mu tilim nee na yaram wala bu yaram wa setee mbubb ma mën teg dinga ko sol benn fan yendoo ko waaye bu ma sol mu ñuul ko biti ba biir ba gën a ñuul biti ba nee na kooko ca yaram wala kon il fokk nga summeeku te nee na pour mu summeeku nag il faut que nag fii nga ñëw ci Cheikh Al Hadj Malick wala fii nga ñëw ci beneen place bu mu mën a doon ci place bi ndegam da nga fay wut yàlla bu la dara soppi bu la yàgg ci place ba soppi bu la ceeb ya niin ya soppi bu la yëngu-yëngu ya soppi bu la dara soppi nee na na nga am tawa tawajjuhi waaw sa orientation daal fi nga téye téye fa rek bu la keneen tax a jóg waaye ku bu fekkee ne lu xew nga suma mbub mu nga fa mbub mu nga fa soloon génn dox yi ñëw bëgg ko solaat boo fekkee keneen ñu solal ko keneen nooy def moo tax bari na ñu solaat yeneen mbubu yu mbubu yi fa indi woon moo tax mu ne wala tarum xayra ma yurdi inna lahu nee na bul sàkku mukk ko neexul am na ci ay ndimbal yoo xam ne yii boo ko xasee ba ñàkk ci moom dootoo ko jële fenn jikkooy sëriñ Mansour ku ñu koy wax kana sëriñ Babacar magam sëriñ Babacar si bu alxaaji Malick moo ñuy wax jikkooy sëriñ Mansour nee na mu wasafun xamulun saburun waasiu sadri layinul jibaal yastawi indahu alxaribu walqaribu kooku mimma shahida lahu axuhu lxalifatu annahu kaana yataxamalu min al ada maa laa yuqdar mu ne ah Mansour de jaaxal na ma Mansour ni mu mënee mbuñ ak Mansour li mu gàddu benn kenn attanu ko moom rek la ko yàlla may moo tax sëriñ Babacar daawul def dara te diisoowul ak sëriñ Mansour sëriñ Mansour yi daawul def dara te diisoowul ak moom moo tax jàpp siis ni ko tàggat nga bakkan yi nooyal xol yi muxtasiban moo tax nañu ko bind rek laa koy indee nee na annahu sëriñ Babacar ne annahu kaana yataxamalu min al ada ma la yuqdaru ala taxamulihi wa bi nafsihi wa kaana alxalifatu yushaawiruhu fi saairi shuunihi wa kadalika kaana laa yatadaxalu fi cheyin illa baada mushawaratihi adduna moo tax am na ñoo xam ni xamuñu li ñu gàddu fuñ koy yenn koo ji wallahi te danañ ko yenn ku nag wallahi danañ ko yenn ku ci gàddu nañ ko du baabara ko du Babacar a leen ko yan du Mansour a leen ko yan waaye il faut ñu yenn ko fa ñu koy yenn koo ji moo jaaxal nit ñi encore bu ma jëlee ci waxu sëriñ Babacar mu di ko jébal ci magam jooju mu ne sëriñ Mansour faqihun adibun faylasuufun taqiyun wariun zaahidun aabidun xakimun jawaadun mu ne ko ak lan mu ne muhibun li uxuwatihi simaatuhu moom sëriñ Babacar nee na simaatu sëriñ Babacar si sëriñ Mansour si radiallahu taala anhu munkachifatun fi chiarihi wa nasrihi sëriñ Babacar si sëriñ Mansour nee na sëriñ Mansour faqih la ku dégg faq fiq la adib la littérature ku mën jàng la fay la suuf la it ku xam lu nekk fu mu lay teg la ñu ne ko ak lan mu ne taqi ku ragal yàlla la ñu ne ko ak lan mu ne wari ku sàmm la ñu ne ko ak lan mu ne zahid ku dëddu àdduna ñu ne ko ak lan mu ne aabidun jaamukatu yàlla piir la moo tax mu tàllal loxo bàyyi ma afil basitati afil السلطات وغير الله معبود رزق العقل أنفسا ما للغير مولود لا فرد على جاونا جاونا كل ما جهد والدي ومولاي والد البر يا أستاذ الله منصورنا سبحانه من لا واعدين صمد شكر Sache Euh, ñu jëlaat ci beneen seede ginnaaw seede Serigne Babacar si boobu radiallahu taala anhu euh, Serigne Mansour foofu dafa tàllal loxo yàlla dafa tàllal loxo Cheikh Al Hadj di ko laaj ndax am na kenn ku nekk ci kaw ndënd wi ci kaw suuf ku nit ñi war a jaamu wala ñu di ko jox cëru cër buy nurook jaamu ku dul yàlla amul mu ne bu dee borom daraja bu dee borom alal bu dee ku ñàkk ku mu mënti doon ñëpp ay jaam lañu kon yàlla rek a jar a jaam ku janoog sa baay wax ko loolu ginnaaw ba mu la xamale yàlla nag sant nga yàlla waaw moo tax ruttan nufuusa wala boog la bàyyam def ci moom albastan yi dama ci àggul waaye danañ ci àgg bi li baa si sitri kooku beneen wax la albastan yi bi li baa si sitri waaye bàyyi solal nga ma mbub boo xam ne mii gom nga du du kii mukk du tili mukk mbub mooma moom laa dese ba tey fu ma dem ka anniya fil aqraani daawootu maa ngi mel ni danga ma joolal nga ma moo xam ne fu ma dem ñu yëkkati ma dafa guddi mu ne ko sëriñ Hadi Touré nee na sëriñ Ba sëriñ Hadi Touré nee na nee na ku jàng bayti yi sëriñ Mansour si def da nga xam ni mos na ca géej ga nee na mosu ca sax dafa far naan géej gi ñu ne ko Hadi géej gi mooy kan mu ne in jita daaka al bahra gus talaba naylal yawaqiiti wax qir wayka xiitaana fa qiimatul xuuti duuna al fasli yaa siqati wa xaalisu durri ma alaahu asmaana ñu ne ko géej gi mooy kan mu ne Cheikh Alhaaj Malick nee moo tax ku mos waxu Cheikh Alhaaj Mouhamadul Mansour seet ko rek da nga gis ni Alhaaj Mansour yemul woon ci tefes ga dafa jël tefes gaag ndox maag yëpp denc ci biiram te ni te ni mag moom moo tax ma ne woon sànq ñamu mag dafay lor gone xajul ci gémmiñu gone xam nga gone googu mooy kan mooy mag mu àggul ci yàlla dégg nga mag mu àggul ci neexul defar coow laay bari rek danga nga jéem lu nekk waaye du tee muy woote nag Sëriñ Mansour ku mënoon a matal kolera la comme ni ma ko waxee woon sànq musta dalli musta dalli bu demee ba kër ga seeni borom toxu mu des fa aw dammitu miir kese dana fa tàntalu wala mu mbaar fa nekk fa ña ci des di wuti feneen am na ku mu daloon Bambey nettali nañ ma ko ñi ko dund dëgg-dëgg te takkook moom gis nañu ci lu bari sëñ Adama Kan faj na soxna faj na soxlaam wala faj na soxnaam su feebaroon ci turu Mansour rek Mansour barke sëñ Mansour ëf jox soxna si mu tane ci saa si waaye taxul woon nag taxul woon Serigne Mansour wuyoo loola karaamaat yooyu musu ko wuyoo musu ko waxee sax doo ko fekk ci mbindam doo ko gis ci waxam doo ko gis ci jëfam waaye xam na ni lu ko yàlla may la te nag def def ko nag bi himmati yaa himmata cheikh duri dafa am benn bis booba sa Pape Mansour ma nga mbambara mbambara booba Thiès sañ quartier yépp xewuñu boo génnee mbambara tropical rekk yoonu xombal am pël bu doon jaay meew jaan matt ko ñu soow jiin fii jiin fii jaan ji ñu ne dana dee dana dee dana dee fekk sa pap baytul xalwati bi mu amoon néegu ñax ba dafa xaw sës ci tali bi perma ca gannaaw mu woo Basiiru Mesere benn xale lam ne eh la mu ne ko pël bu jaan matt fii rek nee nañ dana dee mu ne luñ ci def mu ne lugg nañ ko waaye mënuñ ci dara mu ne ko xam nga nangaa def danga nga maa yollil pël bi fii ci sama wanag bi rek nga dàq ñëpp rek nga bàyyi ko foofu ba sur ñëw ne eh bàyyi leen bàyyi leen bàyyi leen ñu ne bàyyi leen defe ne am na ci pexe Basiiru daal di tekki sàkket bi rek daal di fa jëñax pël bi rek xëccal sàkket bi sa Pape Mansour génn ndànk ci néegu ñax bi rek daal di laa raay pël bi rek jaan ja wàcc mu ne ko rocc ko bàyyi ko ci mbedd mi rek mu dem yoonam loolu moom fekkee naa ko benn gannaaw tibis. kooku kooku kañ bu. Abdou Mbaye ma Abdou. Aziz. jazaakumullaahu xayran bi ma ci bi tëjee waxtu wi jot na dañuy tëj jox kilifa yi ñu la te ndax xam naa ne ñoomit seen gémmiñ a ngi kii. daara ji daara jële daara jële kër sëriñ Mansour la woon ku fa fanaan rek boo xëyee ñu ñu jullee la yóbbu mu di fa dem ñu dem ba dem ci sama maam Safeetu Ñang ni ko Mansour day mu ngi dem ci kër gu doywaar waar googu nee nañu sax sayer gay mi ko doon jàngal foofu la faatoo daara jooju jëca Tiwaawan mooy fii sëriñ Babacar si Mouhamadul Mansour mi nekk yàlla na fa yàgg ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te la fa waajur wa def yëpp mu jëriñoo ko euh, mu dem di fa dem ba ña nekkoon toxu abal ko ah ña daan waaw ña daan nekk gaa ñi nga xam ni bët mënu leen a gis te ñoom ñu di leen gis waaw bët yu sell yaa amatul rek bët yu sell ya bu amoon la mag ñi daan gis ba tey ñu di ko gis du basiira sax bët yee sellatul rek waaw ndax mag ñi daawuñu lekk lu ñu xamul lu ñu alal bari bari ci ñoom doo ca gis mukk ñu jël dara dugal ko ci seen biir ka dañ koy saraxe kon ñu jox sëriñ Babacar mu àggaleel ñu fa tubaarakallah maa ngi jéggalu nag waxtaanu yi di ci manqué bari na waaye maa ngi ciy jéggalu bu baax a baax jërëjëf